ban comportement la ñu dëkk Touba war a am waaye mën nañ koo yokk ba def ko Touba Sénégal waaye ñu tàmbalee ko ci Touba ci élection yi ñu jublu ñi dëkk ci Touba maanaam ku fi dëkk ku ne li nga war a jëkk a tàmbalee xool mooy du kër ndey kenn du kër bàyyi kenn dëkkub sëñ Touba la kon kenn ku fi ñëw ku ne daa am lu la fi indi da nga bàyyi fa nga dëkkoon ñëw dëkk si Touba léegi nag bi nga ñëwee Touba lu tax ngay ñëw Touba ndax da ñëw Touba ngir bëgg defaru àdduna ak àllaaxira ak wéyee ndigali sëriñ Touba wala ndax da ngaa ñëw Touba ngir bëgg li Serigne Touba tëriloon lépp ak lim bëggoon ku ko nekk ci dëkk bi nga nekk fi safaan bi kenn ku ne laa wax góor jigéen ma nga ndaw ku dëkk Touba ku ne na nga tëj néeg nga xool ndax lii may def bu sëriñ Touba génnoon tey ñëwaat. wala bu ma ko fekkee ëllëg yow mal xiyaam bu nit ak jinne ko taxawee ba ñuy xisaab kenn ku ne ñuy wax na nga nekke woon Touba kenn ku ne na nga taxawal sa bopp sa diggante ak sëñ Touba xool loolu moo ëmb wax ji yëpp waaye li ma bëgg a wax mooy kenn ku ne ni fi sëñ Mountakha nekke fexe ko fee nekke élection yii nu jublu waxoon naa ko dinaa ko waxaat te jamono yi sax ma wax leen ni leen maa ngi wër Touba ak ci réew mi yëpp ba sàq mi taxawee ba léegi daanaka bis ay bis bu rek ma def ñetti ndaje ci biir réew mi Touba nag maa ngi ko tuddee ngontu murit saadix waxtaanee war may Touba bërki dem rek saam laa nekkoon mbooloo mi dañuy ñëw ñu takk rajo yi lal basan yi bu dee juróomi téeméeri nit wala junni nit itam bu ñu tegee ma toog mbooloo mépp toog ginnaaw tàkkusaan ma jël micro bi waxtaanee ak ñoom ci war may Touba leeral leen li sëñ bi bëggoon ak li tax nu ñëw fi ñëpp ak li tax ñëpp nekk fi. bu ko defee nu jàll loolu nag li ma ci bëgg a leeral mooy képp ku fi nekk na nga xam ni tuubaa nekk na bi ay élection daataan tàmbali ci Sénégal tuubaa tuubaa dina nekk ak bu élection yi amee itam kon nag ku fi dëkk ku ne maanaam bul jàpp ni fa nga dëkkoon wala dëkk bu nekk nañ fa war a defee loolu ne élection moom ci Touba ak feneen fu mu dafa war a teg ci civilité maanaam ci taalube ci civisme te civisme man ni ma ko tekkee man bi ma ko jàngatee dëgg-dëgg mooy ak taalibe civisme mooy ak bi te dinaa ci dellu si kon ku fi ñëw daal da ngaa war a ànd ak dal xool dëkk bi li mu laaj yow mi fi nekk ak ki fi ñëw te loolu jërul kenn di ko jàngal kenn boo ñëwee ci dëkk bi rek war ngaa xam li muy laaj loolu dof dof dof nga def loolu bu campagne bi jotee bu kenn def ay réunion ci biir kër yi bu kenn marche bu kenn meeting ci dëkk bi bu fi kenn tàcc bu fi kenn yuuxu kenn ku ci nekk fexeel ba foo mën a nekk saw carte fu mën a nekk na nga ko lijjanti ba jot ci nga téye ko su bisub élection yi ñëwee soo jullee suba ba noppi te loolu moo war a am ndax kenn du xalaat ni nit dina dëkk Tuubaa ñu nodd salaatu xayri noom it dañoo jóg d'ailleurs loolu rek loolu rek problème la bi suba bi ne naw mi war war naa fekk nga jóg boo jógee fekk na lu jiit loolu sax xam nga fan ngay wotee ji yaa xam da ngay dugg saret yaa xam da ngay dugg oto yaa xam boo demee nga wote carte woowu nga xam ne moom nga doon wotee ngir ñu fal njiitum réew nga dem denc ko bala nga koo génnati na nga néeg ba keroog ñuy wotee te njiitum réew suñ demee bay wote ay député nga jëlaat sa carte woowee dem wote ji ñëw denc ko kon ñetti yoon ki dëkk Tuubaa ñetti yoon la war a yëngu ci wàllu googu ñetti yoon amaa nag ñu di la gure ni mu xar yóbbu lu ngay tàcc diw yóbbu lu ngay yuuxu diw yóbbu lu ngay nangam nangam nga nekk ci biir Touba de xotti may dëkk bi te loolu ngay def mënoon nga ko dem jàngi ji xasaayit wala nga dem balee ko benn koñ wala nga def ko sëñ Touba toog di la dégg moom ndax yàlla may na ko yonent baa ngi lay gis yàlla ngi lay gis kon dafa am loo xam ne bu fekkee ne dangay wote ci biir Touba ni ñu koy defee ci yeneen dëkk yi ci xumbeen yéeg meeting yéeg animation parti yeeg yooyu yëpp loolu moom wërta mën a am ci Touba te jamono yi sax gis naa ñu ñàkk jom ñoo xam ne ñu ñàkk jom ay jigéen ñu ñàkk jom seen naa leen jamono yi ñuy marche ci biir Touba ñu ñàkk jom te marche wërta am rawatina mu jëm ci loo mel noonu wala boog lislaam ay tax kon wet googu loolu laa la ci wax ci benn beneen bi ci mooy ñi dëkk Touba politiciens yi bu ñu ñëwee gis naa jamono yi ñu naan gaalu xaw ma nan benn jigéen mu soxna si njiitu lu réew mi la xaw ma ñu naan gaalu diw maanaam nan ngay dëkkee Touba yaakaar sëñ Touba dib jullit gëm yàlla dëkk Touba di daan sa doole nga xam ne gaal genn gaal nga waroon a yaakaar bu dee am bu fekkee mënut a ñu ne gaalu soxna jaara wala gaalu soxna musle wala gaalu soxna may wala gaalu soxna moomi gaalu soxna Fadja ñu di la indil beneen jigéen boo xam ni lay nekk ca gaal ga du weesu saabu wala leneen ak leneen te kooku moomul xaalis ba mu lay jox yow nga dëkk Touba war a am dignité bu toll ni yaakaar sëñ Touba ngay mën a dem bay topp keneen di tagg nit bay fàtte sëñ Touba ci dëkk te dinaa koy gis léeg-léeg nga gis ci ñii ndajaloo ndaje yi ñu gën ci vidéo yi ak yi ak YouTube bi ngay gis jigéen ñu nekk Touba wala góor ñu nekk Touba di tagg nit ba fàtte sëñ Touba mi nga xam ne moo leen indi woon ci dëkk bi te loolu ñàkk jom mun ko weesu fii ku fi taxaw rek waroo tagg kenn waroo yëkkati kenn ku lu sëriñ Touba ku ko def nag dangaa ñàkk jom jom rek nga ñàkk am te kon bu fekkee ne yaa ngi koy def sax muy sant wala gërëm ka nga koy defal na doon koo xam ni day doon koo xam ni def na ci sëñ lu ko jar ba noppi gëm sëñ Tuubaa wormaal ko jox ko cër ba mu ko war a jox bu mënta ñàkk laa wax te boobaa it day ànd ko biir ak teggin waaye nag taxaw Tuubaa di kañ kenn wala ngay tagg kenn ci loo xam ne lañ lay jox ne la gaalug soxna jaare nga war a séntu wala gaalug soxna muslim waaye gaalug nangam fay loolu jigéen wala góor ku ma doon ñàkk jom wala ñàkk gàcce mënu ko weesu sëñ Tuubaa rek lañ war a sant delloo ko njukkal ngir yàlla suñu borom beneen bi topp bu loolu jàllee war may Tuubaa xam nga waxoon naa ko ci Saxum ci émission bu mujj bi ginnaaw màggal ba ma naan war may Tuubaa nañ ko war warmaal lu jiitu màggal gi daal ni képp ku fi ñëw di politicien wala commandant boo xottee war may dëkk bi wala nga def fi dëppoo ak li dëkk bi laaj loola dinañ wax dal ci sa kaw loolu def naa ko ci bilan màggal gi loolu moo indi daal li Macky Sall yii ma doon wax mu sol ci biir jumaa ji te génnewuñ ko waaye nag noonu noonu sëriñ bi sax muy tubaab yi defar nañ loolu youtube nga fi la nga fi te ku ci dem fekk ko ci te mën naa ko wut ba génne waat ko ci kon ba koy wax booba xawma sax ni dina ko def foofu it dama fi indi mel mbir ndax diggante benn waaye dafa ma ni sëñ bi man ki fi nekk laay àndal ki fi yàlla teg yàlla bu fekkoon ne dafay continuer teg fi ki fi nekk kon élection du am kon lu tax ñuy campagne bu fekkee ne ki fi yàlla teg la kon lu tax ñuy campagne yàlla da ko fee tegoon léegi diggante bi nag ñuy xool ko fi yàlla teg waaye bu fekkoon yàlla ko fi teg ba léegi kay kon lu tax ñuy campagne kon lu tax ñu def élection yàlla kay lu mu teg kenn xam ne kenn du ci wax dara kon loolu nit buy wax day xool li ma bu wax foofu nag mooy awma ci lu may maslaa waxoon naa ko yonent bi sallallahu alayhi wa képp ku dib jullit réewum Cheikh Omar Fouti Tall Seydi Hadji Maba Diakhou Ba Fodé Kaba Moussa Molo Amadou Cheikhou Cheikh Abdoulaye Niass sëñ Abdoulaye Ndiéguène sëñ cere ba ñépp boo maam Imam Laye ñëpp boo leen boolee maa ngi leen di laaj lenn ci président bii fi nekkoon di candidat léegi muy Macky Sall lii may wax nag ku ci am looy wax maa ngi lay ñaan yow mal xiyam bu nu taxawee ci kanam yàlla ak yont bi ak ñi ñi ma tudd ñëpp na taxaw ni man ba mu waxee lii maa waroon ni lii mu wax du dëgg maa ngi wax loolu maa ngi koy ñaan te boo duggee ci bàmmeel te mu la ko laajee na ko wax mooy lan mooy tey yonent bi nga xam ni amul lu dul moom yaakaaru lu moom Serigne Touba mii nga xam ne yonent bi lay noyee ak ñi ma tudd ñëpp ci réew mii ñu nekkoon tey su fekkee ne mën nañoo dem ba jël yonent bi dessin ko dessin bu ñaaw caricaturé ko caricaturé ca France journalu Charlie Hebdo def ko. ay góor jigéen yu bon def ko bañ ko defee ba noppi am ñoo xam ni ñoom seenu dégg ak fa leen yonent ba toll ñu koo muñ ñu dem faagaagal leen rey leen moo ne bañ ko defee ba noppi nun déggunu benn déclaration ci senegal ci njiitum réew mi mu ni waa Charlie Hebdo li ñu def muy caricature bi du yoon condamné wuñ ko déedéet waaye bañ leen defee lañ leen def nag li ci gën a garaaw mooy lenn wax naa ko Macky Sall moom moo jóge Sénégal jël sunu avion jël sunu essence boole nun ca boole nu ca Bakar ba noonu jël sunu avion ak sunu essence dem àndi ca marché ba ca ñi nga xam ni ni moom il est Charlie ni il est Charlie moo ko def yëpp ngi ci YouTube mi ngi ci mi ci mi ci internet bi dem ànd ca marché ba ña doon ŋàññi yonent bi di wax yonent bi lu ñaaw ndax lañ leen def mu ànd ak ñoom di marche loolu mën naa neex ñi ma tuddoon fii ñii wax leen ma képp koo xam ne as as li ngay wax naan da dem màkk di siyaare xabru Muhammad sallallahu alayhi wasallam wala nga gë wax leen ma bu fekkee ne ñëpp ndax loolu neex na leen ndax tooñ ñu Sénégal loolu mu jël suñu avion jël suñu crésone crésone fa mu doon lekkee naa ne suñu xaalis lañ ko fayee mu dem ànd ca marché ba ñuy ŋàññ yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ni président Sénégal gi nii waaye am na lu gën a doy waar loolu ki ma leen doon tuddal léegi mu nekk sama kanam nii di Cheikhul Khadim ci Touba nga xam ne yonent bi moom amu ci sago kero bi Macky Sall di dem ca marche Charlie Hebdo ba ca France fa ñuy ŋàññi bi dañoo teg autoroute Ila fépp bii autoroute bi lañ teg xeer ba noppi fii ci Mbàkke autoroute bi lañ teg xeer ba noppi Macky Sall ñu teg xeer ba noppi mu déparé Touba won ginnaaw sëñ Touba keroog la dem ca Charlie bis boobu moo tombé ak ba dafa teg xeeru autoroute bi ba pare Cheikh Sidi Mokhtar mi ngi fi bi nit ñi tasee mu jël otoom départ continuer dem Dakar continuer dem Charlie wan ñàkkee war ma sëñ Tuubaa mën naa weesu loolu sëñ Tuubaa fi mu teg yonent bi nga jóge ci dëkkam dem ca fa ñuy ŋàññee yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu moom ay réalité kenn mënu koo dindi beneen bi toppaat mooy Charlie autoroute bii ñuy wax ñaari biñ koy teg ak biñ koy inauguré yëpp benn bu ci def nañ ci loo xam ne neexul sëñ Tuubaa moom fexe na ba di dilatoire ci diggante yoon wi ba ñu faat tàkkusaan faat timis ci daloo gi ñu doon daloo autoroute bi te muy autoroute boo xam ni investissement commerce la maanaam marchandise lañ jën rek di ko jaay kero bi ñu koy daloo gé tàkkusaan ak timis téeméeri junni nit am na ñu ko julliwul te loolu moo tax loolu nag dinaa ci wax leen loo xam war nañ koo jàngee noonu mooy saa yu lii jàllee ba noppi saa yu ñuy defati dara loo xam ne dafa jëm ci dëkk bi ñu léegi ñoom bu ñu proposé ñu leen léegi kat proposé ngeen waaye seet leen waxtu sàngam wala heure sàngam wala bis sàngam ndax président soo fi dem tey. dañ lay jox heure jox la date jox la rendez-vous du fekk muy am occupé nga fay dem kon ginnaaw loolu nag moo gën a tuuti lii kon war nañu am fayda ju toll ni muy président muy comme mën a doon bu amatee programme bu jëm si fii ñu fexe ba def ko ca waxtu woo xam ni du imposer nit ñi ngir ñu may julli nga xam ne ñun ñooy moom suñu bopp ci loolu waaye ñoom du ñu imposer ni far fas tee lañ koy daloo tee lañ koy inauguré wala waxtu sàngam kon ñaar yii maa ko wax dañ dem na Charlie wan sëñ Tuubaa ginnaaw jóge ci dëkkam dem fa ñuy ŋaañ yonent bi te loolu nag yemul ci murit rek wala tijaan wala xaadir wala laayeen képp kuy wax laa ilaha illa muhammadu rasulullah bu la lii naqariwul naafiq nga te loolu mi ngi fii mu kenn mënu ko gome te jéggalu ko itam ba ca topp mooy yonent bi lu ko wokk xori sëñ Tuubaa ba ñu caricaturé Seydina Muhammad salaam dessin yi ñaaw wane ko wane ku ñaaw ba nit ña mer rey ña ko defoon am na journal bu ñuy wax Jeune Afrique maa ngi ko denc ba léegi moom it dafa caricature Sëñ Tuubaa dessin ko dessin yu ñaaw génne ko ba tey président wu Sénégal bii fi nekk muy Macky jamono yi ñu koy yi sax ma ngi ko fekk ci Addis Abeba wala fenn ci am ndaje mu Union Europe africaine doon def nekkul Sénégal waaye au lieu kon mu woote condamné ko déedéet naqarlu ko dafa ñëw ba ñibbisi bi mu wàccee aéroport waxu ca dara ba am ganu italien gu fi ñëwoon ñu ànd xaw ma lu ñu doon def fa la yëkkatee kàddoom ni waaw kenn ku ne da ngaa war respecté li kenn ki gëm nga xam ne ñeenti fan ginnaaw bi la ca wax waaye li gën a garaaw loolu mooy journal bi ñi ko moom sax ak ñiy jaay journal Sénégal ñime wuñ ko a jaay ci réew mi man waa ADP ñëpp wax nañu laaj naa leen ñu ne ñun bu ko indee ñime wuñ koo jaay ndax dañu murid dañuy rey dañuy taal suñu place léegi nag bi ñu toogee toog état bi terewu ko ci lañ ko jaay même ñi ko doon jaay di yor ay casque di jaay ay journal dañu ko doon nëbb soo ñëwee ni am nga Jeune Afrique ñu xool la ba xam buñ ñu ko mënee jaay jaay la ko ndax yaakaar nañu boo génn ñu rek lu tol noonu garawee noonu gën a méttee noonu askanu Sénégal yëpp même boo dul jullit ñu def loolu sëñ Touba ngay jiitu réew mi au lieu nga condamné ko ni journal bi bu mu fi dugg waaye nga bàyyi ñu jaay ko ci biir Sénégal journal bi biñ ko jaayee ba noppi am na leen lu gën a garaaw ñu toog ñetti weer ñu naan Jeune Afrique dañ ko sanctionné dootu dugg Sénégal Jeune Afrique ni leen noo ngi xaar ba keroog kenn mu sanctionné ba dootu ñu nu jaay Sénégal ñu toog ci juróom benn weer juróom-ñaari ba tey maa ngi ak journal boobu mi ngi ci Touba gii présidence su Sénégal bii présidence bii ñi fi nekk ñu jël deux cent et quelques millions deux cent trente wala quarante millions jox ko publicité Jeune Afrique mi doon caricature Sëñ Touba. deux cent et quarante page treize millions la page treize millions maa yëpp ñaata page benn page maanaam benn xët bu ne treize millions lañ ci la ci Sénégal fay ci ab publicité jox ko Jeune Afrique mi doon wax lu ñaaw Sëñ Touba ginnaaw bu mu defee loolu ba noppi loolu mu jox la ko muy benn. kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam képp ku koy tuddoo ni bëgg naa ko maa ngi lay laaj bu fekkee mën ngaa taxaw yowmal xiyaam ni lii foo koy teg ak kii noo koy jàppe loolu ñëpp la concerné moom jullit ñëpp la concerné waaye beneen bi nga xam ni ñëw na war a concerné jullit ñëpp mais bu leen neexee nu féetewoo ko noonu rek mooy Cheikh Mouhamadul Fadel fi mu teg sëñ Touba ba daawu ko tudd borom baraag bi lay wax Cheikh Mouhamadul Moustapha yéerim la daan tàllal nii bu ñuy bale Touba mu def ci mbalit mi bu ñu demee ba ab président du ci Senghor du ci ab Abdou Diouf du ci Abdoulaye du kenn mosu koo xalaat ba ci Cheikhou Touré Macky Sall ñëw ba ci màgg màggalu Touba romb sëñ Saliou romb sëñ Abdoul Ahad romb sëñ Mourtala romb sëñ Abdoul Ahad ñëw ba tolloog Serigne Cheikh Mouhamadul Fadel ak ni mu bëggee woon sëñ Touba tolloog Cheikh Mouhamadul Fadel Cheikh Moustapha nekk ci càmmoñam mu sol ay dàllam ñëpp so def tànki neen ba Mor Ngom mi nga xam ni moom ci parteem la bokk di liggéey ak moom ni ko président sa dàll yi da ko war a mu wiccax ko loxo yi nee nañ da ko def ci karaw yi ni ma koy sumee ci ñoo xam ne ñoo doon defar karaw yi bu ñu ko raxasoon sax fi mu toll am ko mën a naan te yow juddoo woo Tour Eiffel ba tax nga ne yow wóoroo teg say tànk ci ay karaw mu wiccax loxo yi sànni lànk bañ a teg sumi edaalam ci ci fi tolloog sëñ Fallou Cheikh Modou Moustapha nekk ak sëñ Fallou ni mu mel yemoo ci nga dugg ci biir xabarub sëñ Touba ñu ubbil la ko ubbil ñu ko waaye turu Sénégal tax ñu ubbi nga toog ci biir sol sa mbaxana moom Macky Sall sol mbaxana te li may wax lépp mi ngi mën ngeen ko gis amul lenn lu ma ci wax lu amul nga sol sa mbaxana sol say dàll ci biir jumaa ji te Cheikh wu mbakke man yaru naa ci moom suñ daan jógee ci kër gi di romb kanam jumaa ji ci biir oto bi lay nekk summi ay dàllam ba romb jumaa ji ci biir oto bi waxantuma la ak nag di dox yow nga dugg ak dàll yow rek toog ñu wax la nga lànk nag may laaj santal Mbacké santal buso santal jaxat santal loo sant noo mën a doon yow bu fekkee ne mën ngaa yow gam-gam le Serigne Touba fa ko teg ci sa xol ak consideration ba ak wor ba di ko war ak ku def lii soo mënee taxaw di ko féete fenn wala nga di ko jàpp ci lenn bu boobaa man mii moom nawlootuma la man nawlootuma la ak koo mën a doon su fekkee ne Serigne Touba maanaam waxuma la Serigne Touba waaye taalibu Serigne Touba weem rek lay deem ci weem su fekkee ne mën nga ku def lii man koo mën a doon nawlootuma la ndax ku ñu fi tudd rek sëñ moo tax la ko yonent bi jaraloon nag war lu ne war nañ koo jaral boo xulawul xeexuloo itam nit ki war naa am kersa war a am vergogne war a am ngor war a am deret ju toll ni ku def lii ci biir Tuubaa def ko sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa du yoram ni te du ko toppatoo waaye noonu ñi nga xam ne moom la ñuy noyee nga ñàkkee war ma sëñ Tuubaa ci Charlie jóge ci dëkkam sol ay dàll ci biir jumaam dugg ak mbaxana lu kenn dul def taxaw fii sëriñ sépp ay citoyen ordinaire lañ Sénégal gépp di ko dégg loolu jullit ñëpp ko bokk kenn mënu ko din surtout sëñ Fallou Mbacké bii ak lu mu mën di def ci àdduna lañ ko doon jiiñ nekkul ñu tëj ko ci kaso bi juróom benn weer wala ñeenti weer te ba nga ko wooyee wuyus ne la waaye bi mu la wuyusee nga mënatoo ko ngir bëgg a toroxal yoon mi muy Assane Mbacké mii lii lépp xew fi dem fi ba nee na ak cant ci boppam kenn dootu ko def cant ak cant Dakar toll nañ am na jamono yoo xam ne ñu doon cant ñun leen cant yi dañ ko wutal heure la ak cant yi ñu def loolu yëpp nag Macky Sall moo ko def ku ko mën a dindi nag man du ma wax lenn loo xam ne ñu gisul lu ma wax rek journaux yi bi lu am ci Sénégal la kenn mënu koo dindi kenn ku ne nag bu fekkee ne yow xool nga loola maanaam yow sa bopp Serigne Touba defalul lu ko jar defal na la moom lu lu gën la la Serigne Touba defal ba ma ba nga mën koo féete fenn di ko jàppale ci lenn boobu waa yaag caag ko wax nan ngay dugge ci ay urne jëf jëmm ji def jëf jëf ji mu def tubaa def ko ci yonent bi salaahu salaam ak yeneen yoo xam ne mësu ko tudd bërki dem rek a ci mujj lu toll ni jumaa ñi di ko inauguré ñu taxaw di tëgg ay sabar loolu sur le plan culturel rek la ci wàllu diine laay wax rek mais waxaguma sax ci wàllu la nga xam moo jëm ci laaj bi ma laaj kon yaakaar naa ni képp ku nekk ci réew mi wala nga dëkk Touba noo ngi dund loo xam ni am réew am na foo xam boo fa tolloo ku ca bokk ca la complice nga ca man nag yaakaaruma kenn gëwuma kenn doyluma kenn ku dul Serigne Touba kon lii mu def ñii moom ci ay jëf yoo xam ne tuuti laa ci lim danaa ci lil siwaat yeneen yoo xam ne wér cëng la kenn mënu ko dindi dama ne képp koo xam ne nekk nga fi bu dee jullit nga digganteem li mu def yonante bi bu la neexee nga man koo encaisse yaa xam kooku bu dee taalibe nga nag wala ngay mbokk sëñ wala loo mën a doon bu fekkee mën ngaa taxaw ñu lay dégg ngay wax lii nga xam ne def nañ ko ci dëkkub def ko ci njabootu Sëñ def ko ci yoon wi nga mën ci wax lenn bu boobaa yow moom man nawlootuma la man waaw booy woote naan jàpp leen di wala nanga ma naan ba noppi lii nga teg sa bit te du du lu ñu sos lu déggu la nawlootuma la ak koo mën a doon kon li ma bëgg a tënk ci sàq mi tey muy sàqum Tuubaa tey jeexale ko ba ajjuma bii nu jëm allah mooy euh, am na ñuy wër ci dëkk bi Tuubaa ñuy wax ay groupement dañuy financé dañuy nàngam nangam dañuy def nangam nangam dëkk bi ku fi nekk jàppal ni sëñ Touba moo la financé te ay nax moo ci ëpp ndax bu ñu toogee juróom-ñaari at amul lenn lu luñ mën a taxaw lu concret lu wér luñ ne inauguré nañ ko fii ci Touba ba ci hôpital bi ñu tàmbali woon France dalu xi PUDC bi nga xam ne moom lañ dox région bi yëpp fukki maire rek juróom-benn ñoo ànd dem ci sëñ ba di naqarlu ni gisuñu dara luñ fi def mënuñoo layal ab liggéey loolu waxuma lu am la. groupement yi ñuy wax yàlla moo leen financé ay ay loxo jigéen ñi xolli gerte yàlla leen financé moo leen financé ay baaraam kattan gi ak daal gi nekk ci Touba sëñ Touba moo leen ko financé Touba ba ñu tàmbalee développement te jigéen di ko def ca Cheikh soxna Muslimatu Mbàkkeem Sëriñ Touba la tàmbale woon muy defar ay cere lay loola moo law ba léegi ba sëti sëñ Touba yu jigéen yu bari léegi ay pionniers lañ ci wàllu production locale di ko soppar ni di ko jëfandikoo ci café ci gerte ci cere ci lépp te kenn déggu fii ba fi jigéen tàmbalee def développement booba régime yi fi nekk yépp jaaruñu fi ci soxna mosul la tàmbali woon jigéen ñi bi ñuy xolli gerte kenn financé wu leen ay baaraam yàlla moo leen financé ay baaraam waaye jël ay miettes ñu dajale ko jox ay nit ñu taxaw feri tàccu xool leen dinañ rus sëñ Tuubaa mi ngeen nekk ci ab dëkkam bu nuy delloo njukkal nan sant yàlla te delloo njukkal sëriñ Tuubaa te loolu ñuy financé ak fu mu mën a jóge ku la ne maa la ko jox xamal ni sa xaalisu bopp la yaa ko moom ci keesu gafakam réew mi la jóge waaye du lum ñaq ci ñaqam ba noppi ba jox la ko wax naa leen ko ci gaal gii ñuy wax léegi di wër réew mi de Sénégal naan biir Touba naan gaalug diw naa jigéen ci nekk Touba war ngaa war ngaa rusa lekk ci genn gaal gu dul gaalug soxna jaara soo des gor laa wax jigéen ñi fi nekk di siti Serigne Touba am na ci ñoo xam ne ubbi nañ ay daara ñii ubbi ay internat ñuy jàngale nga xam ne mën ngeen def sax groupement jàng du wees di wër jigéen ñi ñu leen di jàngal waaye nag mbiri financement yi ñuy wax loolu sëñ bee ko def ba noppi wajal xarimana xariman daamina wa kum bi hibdi bi hibdi a kabilan daamina wajbul hal xayra min al jihaati as sitti wa fi haa anil afaati mi ngi ci matlabul fa sëñ xéwal yi ngeen am ci Tuubaa sëñ Tuubaa leen ko jox kenn joxu leen ko delloo leen sëñ Tuubaa njukkal te sant yàlla amul kenn ku ñu naan damay liggéey sëñ Tuubaa ci dëkk bi jaare ko ci anam boobu déedéet bañ yàgg jigéen ba mu yàggee développé ci Touba yàgg na nee naa ko cere lay kafe araw rabiseer lu ne booba Sénégal kenn xamagul loolu kon kenn du leen jàngal am amaa nag ñëw bëgg leen ndar képp ba tax ñu leen jaay ci turu sëriñ bi bu buñ la ci jaaree woon sax ca taw ña tax ñu di ko def ñu wormal sëriñ bi waaye ñàkke teggin gi ñàkke wormal sëriñ bi ñàkke ko yoon wi ñàkke ko l'islam bi ba noppi ñu ñëw taxaw yow ñàkk sa ñàkk jàng rek tax ñu bëgg laa gurgur soo des gor bu ëllëgee maa ngi ñaan képp ku seetaan lii nanga ma wax ne ma ëllëg man man mii di wax ak yow nan taxaw ci kanam yàlla ak bi nga wax ni keroog ba mu demee ca Charlie man àndoon naa ca ba mu waxee loolu ma seetaan ko ci YouTube bi maa wax ne ko àndoon naa ca ñaan rek képp ku teg bat rek nga wax koo xam ne dàll yii mu sol ci jumaa ji ak ñàkk teggin gii mu ñàkk teggin ba dugg ci biir xabru bi sol mbaxanaam ak yeneen yu mel noonu yoo xam ne am na fi ajjuma joo xam ni ci Touba dong lañ ko def mooy bi ñu wax ni terrorisme day def bari ci réew mi Macky Sall di ñëw fii ab candidat la léegi di ñëw fii ci jumaa ji ajjuma di julli ñu jël ay box yu ndaw nga xam ni kilifa gune ne bi nga daataan dugg ci jumaa ji ci box ba nga jaar ñu di la visiter lu tax defuñu ko ci te dem ginnaaw bi dem na ci këri diine yëpp mais amul fenn fu ñu ko fa def Touba dong lañ fi indi fii di visiter kilifa yi ñu dugg ci jumaa ji boo gëmee sëñ Touba kay te muy dëgg te nga ni mu nga waaye waaye bu ñu la doon bomb biir jumaa ji sax war sama xel war naa ñu jël ay box def ko ci bunti jumaa ji nga xam bala ngaa jàll ci ngay jaar mu sone wala ñu làmbatu la ci julli jumaa loolu xew na fii ak yeneen yoo xam ne bu soobee yàlla des na ci delsi am réew nag bu amee fu mu toll foofu laay jeexale mooy wasalaamu ala man itabaa al huda ñi ngi ñaan di def lépp waaye nañ xool ñetti at yi yëpp bu fekkee injustice am na ci réew mi wala amu ci injustice nañ xool ndax am na ci réew mi amu ci te yàlla ci boppam bëggul injustice moo ko jëkk a bañ ci alxuraan fu ne la ko wax inna allaha yuhibbul adla wala yajrimannakum xaw qawmin ala an la taadilu faadilu huwa aqrabu li taqwa nen na ngeen maandu doxal yoon bu leen faral kii bàyyi kii loolu yàllaa ko wax ci alxuraan mën nag wax yàlla ku sa xel dem munoo tee bu bu waree wax nu wax ko bien que ñun ñëpp ay nit lañ waaye am na loo xam ni kenn ku ne xam ne réew mi am na fi ay injustice yoo xam ne képp ku ci noppi complice nga ci biir waxagul nag ci wàllu sexa muy santé ak éducation ak leneen ak leneen bari na yoo xam ne yëpp benn bu ci nekk bu ma lay wax dama lay indi luñ bind loo xam ne kenn du ko mën a dindi kon réew mi foofu la toll. kon kenn kuy taxaw naan maa ngi jàppale diw wala maa ngi koy def nangam ngir nangam ak nangam danaa ko def wala kaay leen jàppale ko yow man waxuma ak kooko yow mi nga xam ne yow lañ gurgur bëgg laa def ni mu xar yow yaa war a xam sa bopp te Sëriñ Tuubaa jaral la loolu yonent bi jaral la loolu réew mi it nga bëgg ko bëgg yoon bëgg justice même bu fekkee du sa mbokk sax buñ tegee nit ki loo xam ne jaaduwul nga xam ne jaaduwul waaye li fi nekk tey ji wasalaamu ala man ittabaa al huda yàllaa ko wax ci alxuraan waxuma ko Sëriñ Tuubaa moom la daan jeexale ay waxam nee na jàmm mi ngi tege ci njub maanaam ñaan gi moom dañ koy def di ñaan ci ak waaye dafa am lu jiitu ñaan moo yàlla dani tege leen ci yoon doxal leen yoon ba noppi nag ñaan ma ma may leen kon léegi yoon képp ku ko deful war nañoo taxaw ne la yow mii li ngay def tegoo ko ci yoon ndax nun ñëpp bu boobaa du man du yéen ñëpp lay concerne ñëpp lay laal waaw ñëpp lay laal loolee nag bu ñu ko bëggee laf muy ñeenti at yi jàll yi ñu fi def ci ñàkk yoon yëpp injuste ak yëpp ñu teg ci tànk nag ba noppi wël di soo ko wax wël di wax nag bu boobaa am na loo xam ne yàlla suñu borom moo ñu jëkk a jëppi maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp lii mooy Saxum tubaa tey incha allahu rabbi di ngeen ko gis ci compte YouTube bi Saxum Touba l'officiel mais di ngeen ko gis itam ci YouTube d'une manière générale wala ci yeneen sites yi nga xam ne dañ ko jël lii nag liñ ci jublu mooy nun ci suñu bopp yàlla lañu gëm yonent bi Serigne Touba yaakaaruñ kenn yaakaaruñ yëfi kenn yàlla yonent bi Serigne Touba dëgg rek te réew mi itam kenn gën kenn gën nu koo bëgg mu jaral nu lu ne waaye nag Serigne Touba moom dañ dañ ko waxaalewul moom kon am na noo xam bu ko nit doxalee ci dëkk bi ak ci réew mi ak ci yoon wi bu boobaa dañ koy wax ba ñëpp déggu keneen koo xam ne nag yow la la la la keneen defal moo la gën a la la sëriñ ci waa doxal defal ba tax ñàkke war ma ak ñàkk mën na mën nga mën nga cee teg sa tànk di ko ma moo mootuwaale yaa xam man bu boobaa nawlootuma la jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ba ajuma jàmm